Uh, salaamaaleykum anniversaire bu ñàkk xorom anniversaire bu lewet moom la APR amal niki démb allah Walfadjri yéen a kaay ñu ko xamal fukki at ak ñaar biñ taxawalee parti bii di APR Macky Sall jiite ko mu xam ñu mu àndal ba yàlla def ñu jël nguur gi waaye tey ji liñ seetlu mooy kàngamu APR ya ponkal ya sos APR fa ñoo wan ginnaaw Macky Sall ci anniversaire APR bi Aline Badara Cissé kenn ci ngonku APR yi ne kenn woowut ma ci anniversaire anniversaire bi te musul mi cee woo sax critique yéen a kaay ne mbaadu kon makki fa jàmbu ay xàndandooru démbam ñi daan sonn ngir APR ba dara du dara waaye tey daal fa mel ni bi mu faloo fa jël ay niti démbam sànni leen fële hut ay xarit yu bees direct news ne man kay partem bi APR fa maa jaaxal yow seetal ah yow parti boo xam ne musu ñoo amal renouvellement parti boo xam ne structuré wuñ ko maanaam waxuñ ne kii moo jiitu kii moo ca topp ci diiwaan yi déedéet fa bàyyi rek responsable di pëccëxoo ak rayante seen biir ñu ne déetawaay amul njaayam carte loolu yëpp wote yu ñëw nag élection APR moo koy gañe lii yéene kaay mel ni ku naan ko xee fa mel ni la woon naa wan ni de makki àndandoorom yu beesam yii nitu démba mi ko ginnaaw boobu mooy wote yi di ñëw APR fay fori neew de seen ndaje man ak ñaan ya rek fukki million juróom benn lañ ca dugal l'observateur dikk ak ñun ci ngon ko yi militant yu jëkk yi tey li ñuy sikkee makki ak doxalinam le soleil yéene kaay na njiital APR wax na ak ay xam daal mooy ministre yi nga xam ne fare na kat ji dàq moo ñu mujj ñii rek kenn ñëwut ca anniversaire APR ba ñoom ñëpp fa ñoo lànk bañ toog leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne parti Idriss Seck ba réew mi boo moytu ca tas la jëm de a yaaw seetal fañ doon xamal réunion waaye ponkal ma ñuy wax Déthié Fall teewut ndaje ma fa bañ wan leen gannaaw mbaa du fa doxee nag bàyyi parti bi xam nga Idi fa koo kaj ji ci poste ba mu ko dénkoon numéro 2 ba yóbbu na ko numéro awandaare ndax la waxoon ca Macky moo neexut Idi l'évidence yéen e kaay mel ni ku naan ko gis nga Déthié Fall mii moom askan wi assemblée nationale Moustapha Niass daal njiit la ak Mamadou Lamine Diallo député ba ñoo doon ñàkkante wecceeku wante kàddu yu métti yu a kaay a maanaam kilifa diine wala nit ku jóg rek dajale ay ndaw ñuy sàmm kaaraangeem sécurité ñu mel daal ñu yore armée ci biir Sénégal yéen a na loolu foogu ne danger ci réew mi mën naa fitna ëllëg de ah kaaraange état bi moo ko war a kenn amul droit sa kaaraange bopp waxuma laa ay ndaw yu baree bare tàggat leen xam ay commandant palaneen l'observateur moom di ñu xamal ne ñeen fukki doomu aadama ak ñett yi ñu tegoon loxo si centre yooyu nga xam ne fañ faa jàppoon ay doomu aadama di leen toroxal ak bunduxat ak fanweer ak juróom-ñaar ca ñoom tey la ñu jàkkaarloog procureur bi source ay yéene kaay na ko lenn ci ay taalibe sëriñ Modou Kara xamal nañu réunion ca diiwaan ñu ne déetawaay ñu dem seete ji seen mbokk taalibe yooyu nga xam ne gendarmerie fa leen a teg loxo ci coow loolu ñoom nag bañ demee fa ñoo wax ne pare nañ ngir ànd ak ñoom dem ci kaso gi ndax fañ leen wala fañ leen di tëj kaso li ci kanam rawu li gët li rawu turbine yéene kaay ba mu wax ñu ko tey mooy waa MFDC rebelle ya ca Casamance génnee nañu ngàndaay ya ña ngay sox tiire tëf fitna ja jolliwaat na ca Casamance attaque lañ amal si geen xam na xibaar yu ne nag Salif Sadio nag moom ay loxom génnut ca ñetti xale réer nañ mër ñu leen di seet la ñu seet ba ñaawlu ko ñoom mbootaay réewu Europe yi mooy accord de pêche yi dox seen diggante réewum Sénégal le quotidien yéene kaay ne na gaa ñu taqal nañ acteurs yi de ka ñu taqalut waaye lañ ko tuumaal moo ko def te nangu na ko mooy jël bu ñuy wax duudu ko ci Italie ngir mu dem Espagne te fukki at ak ñeent la amoon doom ja doxee fa dee tey nag lii yéene nee na taxaw na ca kanam attekat ya procureur ñaari atu kaso la sàkk ñu tëj ko moom bàyyi duudu nag ci libération ma ngay waat nee na billaay wallaay sama doom ji kenn gënoon ma ko bëgg moo ma gën a lépp lu ma am waaye bi ma koy yóbbu faa bëggoon rek mu tekki te faa bëggoon tamit su demee ba hegg ma doo di ko wax ndayam li ma def nag réccu naa ko yéene kaay bi mel ni ku naan ko réccu nag fay wees man ma weesu loolu dugg ci xibaaru tàggat yaram ngir wax leen ne ligue des champions démb équipe bu mag a mag bi xaw ñu rey ko mbuqi di ko mbuqi ba mu tàlli ñaret Shakhtar a fa jaar dana ko rey de bi mooy ñaari yoon ki nar a dee boo moytul tey mooy Paris man yu da lay fekki ma fekki oustaz Mouhamed Lamine Diop ca l'Observateur ma ngay wax xibaar yu garaaw ci sénégalais ni ñuy jëfandikoo mbiru sëriñ toog xar ga fuufak ay jinneeg ay xaatim mag ba ci saraxe ay doomu aadama xam nañu koy def ka def lu yéeme libération moo ñu ko xamal ayaw seetal benn waay bu ñuy wax El Hadji Barham Badiane fa xam doom ju am ñeenti at ñu nelaw doom ji jooy rek jooy ya tànqal ko xam nga nu defam fa koo mbuqi di ko dóor fa koo dóor ba doom ja tàlli ñeret faatu ñàkk ba kanam allah l'observateur dëggal xibaar bi ne jooy doom ji moo ko merloo ndax fa ko tànqal rek mu dóor doom ja mu dee doom ja nag ñaari at laa moon libération na ko ëpp na ko de ñeent la moom bàyyi ja nag xam nga lu wax nee na fa ma doon yàqal nelaw léegi faa ko dóor ngir mu noppi ndax fa ma tànqal ba ma ko dóoree nag mu doxee fa dee waa ma ne sa jooyu doom tànqal la ba nga dóor ko mu dee ah, xam na góor ñu ne ngéej xam doom ba mu wax leen bàyyi wala jooy di leen tànqal te ko la nga waroon a def mooy xool lam bëgg nga defal ko ko su ko defee mu noppi waa léegi yow nañ la dóor nga jooy rek après ñu rey la mu jeex c'est tout